da nga di jaay kat di jaay ay yére dàll saak poset wala lépp lu xeetoog lu ni mel wala sax ngay liggéey moo xam ngay liggéey menuisier bois menuisier aluminium mbaa lépp lu xeetoog lu ni mel te bëgg fësal li ngay liggéey ba àdduna yépp jot ci nga yokk sa chiffre d'affaires contacteel gaaw service commercial bu Sénégal 4 TV ci 77 507 27 29 équipe de production bu xarañ te man seen liggéey ñooy déplacé wu ñëw ba fekk la fa nga nekk filmer la ko monter la ko publier la ko àdduna yëpp jot ci ci njëg lu xéwale bul ko wàcc composé gaaw 77 507 27 ak Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yu Sénégal 4 TV amati nañu mbégte contentement dikkaat ak yéen ci seen chronique du jour chronique du jour ngeen koy am ay bis yu nekk ci site bi ngeen tànnal seen bopp di Sénégal 4 TV di ci ak seen mbokk seen xarit seen doomu ndey Assane Dia alias Azou le Pro mbokk tay comme faral di rek chronique du jour dafa encore une fois pour def euh, jangat bu série bi nga xamanteni ko épisode bu série Wiri Wiri voilà di ndaw fele TFM tay itam ni euh, Soleil Levant voilà diko diko fournir muy benn série boo xamante ni vraiment c'est c'est c'est très intéressant et que boobu ba léegi nit ñi ñu ngi koy safoo di ko ndamoo te itam di ko tiitaroo malgré sax amoon na ay tuuti wax yoo xamante ni nit ñi boobu ba léegi ñu ngi ko ci wax naan dafa war a jeex dafa war a jeex mais quand même gis nañu ni gars yi commencé nañu comprendre bu baax a baax euh, fan la série bi jëm instant bi ni nii et que nit ñi ñu ngi delluwaat encore une fois de plus di bëggaat série bi voilà tey nag ñu jëw euh, Sénégal 4 TV àndandoo ci ak Azul Pro bëgg def suñu jàngat ci série bi nga xamante xamante ni moom la ñu mujjee seetaan léegi léegi léegi nii voilà comme ni ñu koy defee tous les jours ah bu ñu defee suñu jàngat ba noppi bu fekkee ni rek d'accord nga ak ñun ah da ngay dem commentaire nga wax ni kat euh, tey moom vraiment vous avez raison ànd naa ak yéen bu fekkee itam d'accorduloo ak ñun gisu bokkoo ak ñun tamit xalaat da ngay dem ba tey commentaire nga wax ni man kat d'accorduma ak yéen bokkuma ak yéen gis-gis man nii laa gisee nii laa gisee defe naa ni loolu mooy démocratie donc sans plus tarder ñu daal di dem nag ci li nga xamante ne moo di euh, seen euh, chronique du jour dem ci jàngat bi dof bi de tooñul kenn. inspecteur. commissaire. mission accomplie. Merci, merci beaucoup monsieur le commissaire. voilà merci beaucoup mbok Internet du Sénégal 4 euh, TV defe naa ni ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ci image ni nii euh, seetaan na ndokk aussi tamit ci série bi voilà li qui dafa nek phénomène bo xamanteni ni di remarquer légui ci film sénégalais euh, malgré xeyna na na am bu euh, mais dañ dan def buñ ko gis ben koy lan li mental pour mu lert ñi nga de dégg sorewul Moy dof voilà jël ben nit mu jouer dem toog moo xam ci bopp koñ lay doon wala mu toog ci buntu kër jàmbur pour def ay investigation ñu gis ni ñu ngi koy commencé di ko defal promotion xëy na yaa tas de série yoo xamante ni tey si tey mënoon naa ko lim ils ont fait le même scénario maanaam jël nit mu nekk benn agent boo xamante ni agent police lay doon mu dem mu joué ci rôle dof voilà pour def ay investigation pour mën a teg loxo ñi nga xamante ni ñoom ñooy les malfaiteurs ñi nga xamante ni ñoom ñooy def ay yëfi ñaawteef man tey si tey ma am ci ben xalaat bo xamanteni xeyna bëggon nako partager ak yeen moy est-ce que lii bu ko continuer diko defal promotion waaw ba dootul dem ba ñun suñu askan dootuñu amati confiance ci dof yi nek ci mbedd mi nañu ma bal tayit nañu ma jéggal ndax nak euh, Dakar lañu nek euh, même bu fekkee ni ñi nga xamante ni sax au-delà de Dakar lañu nek nekk maanaam nekk ci yeneen région yi dañu nekk ci dëkk boo xamante ni tous les jours que Dieu saa boo génnee ci mbedd mi yaa ngi jàkkaarloo ak dof yi ñun ak ñoom ñun ñoo bokk dëkk ñun ak ñoom ñun ñoo bokk nekk bu fekkee ne léegi dañuy def film bu génn rek ñu def ci ni kiy def investigation bi rôle dof lay utiliser ba jàpp nit waaw ndax loolu mënul indi beneen gis-gis boo xamante ne ñun mën nañu pousser à que ñu koy xoolee ñi nga xamante ne ay malade mental lañ ti nekk ci suñu biir et pourtant ci société bi la ñu bokk ñoom dof yi pour man waroon na am benen promotion bo xamanteni waron nañ leen ko mën defal pour que ñu leen di gëna bayyi xel euh, contrairement à ce que ñuy pousser nit ñi à ce que ñuy mën di euh, di am di am méfiance wala boog di di leen bayyi xel ñom ñi nga xamanteni ñom ñi di ay malade mental parce que film dafa nek image bo xamanteni dafa doy waar lépp loo xamante ni koy divulguer diko ko ci ce film jàppal ni même à la vraie vie nit ñi mën nañu jëlat loolu comme exemple tey si tey ñi nga xamanteni ñom ñoom ñoo dëkk dans les quartiers résidence dëkk ci yenn quartier yi euh, mën nañu xëy un bonjour gis benn dof bu nekk ci seen koñ ñu ni kat ah sir wiri wiri kat am na benn dof boo xamante ni moom moo fa nekkoon nekkoon policier est-ce que dof bii nii di taxawaalu ci koñ bi nekkul un policier parce que des fois gars dañuy commencer di wax di wax wax yoyu des fois bu nit wàccee ci koñ nek fa ben malade mental nit ñi commencer di poser wu ay question est-ce que dafa dof voilà est-ce que dafa li est-ce que dafa la kon pour man war nañ mën di bàyyiwaat xel bu baax a baax ci côté boobu pour man ñëpp di utiliser ben scénario bi ñëpp di utiliser yenn séquence yi war na mën a ñàkk parce que nag dañu nekk ci dëkk boo xamante ne ay kangam ñoo fi nekk ay boromi bopp ñoo fi nekk booy utiliser moyen police pour man war nga mën a dem defi ji ay recherche parce que police am nañu yeneen moyen yoo xamante ni moom la ñuy utiliser pour mën a teg loxo ki nga xamante ñi nga xamante ne ay malfaiteur lañ lu dul rek dof mais bu fekkee ni série bu ñëw utiliser dof pour jàpp ñaaw ñi def ñaawteef série bu ñëw utiliser dof pour def ñi jàpp ñaawteef su boobu su yàggee nag vraiment sunu askan tamit faw ñu bàyyi xel dof yi boo multu sax ñu commencé di leen daw nag wax dëgg fa yàlla voilà kon daal loolu xëy na série Wiri Wiri def nañ ko jàll na mais dañuy def rek euh, cri de cœur bi pour que ñeneen ñi nga xamante ne nii ñu ngi préparer di envisager pour créer ay film pour que nag nañ ñu dimbali nag genre séquence yu mel nii wax dëgg fa yàlla wiri wiri jari ndari wiiri wiiri jaari ndaari ini dama tàng dama tàng ayati sëri voilà merci beaucoup ba Tam gis ngeen li nga xamante ni deuxième image bi voilà ñu wan ñu ni ki nga xamante ni moo Kumba nekkon nek yaay nekk Cheikhouna ak ki nga xamante ni Mbay ci film bi moom itam dañu gis ni instant bi dafa perdre mémoire am ba tey itam xam naa tey gars yi dinañ ni tey ci ci ci ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di les malade mentaux ñu leen di tuddee ay dof tey ci ñoom laa nekk effectivement effectivement nag il le faut il le faut wax dëgg fa yàlla parce que suñu série sénégalais yi dañu tàmm benn affaire mooy que ni heure bu ñu bëggee wane ni nit dafa ruiné heure bu ñu bëggee wane ni nit maanaam dafa dafa dafa dafa dafa yàqu la ci àdduna rek il faut que ñu transformer ko mu nekk dof pour lan pour lan pour lan ba heure bu ñu bëggee wane ni diw mi sànku na léegi rek il faut que dañ koy def créer ko mu nekk dof pour lan mais pourtant war nga mën a ruiner ci àdduna te doo dof nit ki war na mën di def lu bon ci àdduna ba lu mën di def lu bon ba ëllëg lu bon fekk ko fa mais te doo utiliser image dof tey si tey ndey kumba pour man waron nañ ko mën utiliser ci benen aspect ci benen anam bu bokul diko doflo dofloo bu ñew c'est comme ça série bu ñew c'est comme ça kep kuy def lu bon au final dañ lay utiliser nga nek benn dof pour lan pour lan léegi lan lañ ñu bëgg a jàngal lan lañ ñu bëgg a wan mooy que ni bo dé def lu bo dé def lu bon ci aduna bu yagge li la ci conséquence bi la ci mën fekk moy dof mais dof moy dernier la dernière des choses moy la dernière des choses arrêtons gars yi nañu bàyyi li nga xamanteni ni ñom lañuy ñuy di jël les malades mentaux di leen utiliser bon bon je ne comprends pas quoi je ne comprends pas vraiment dafa nek ben phénomène bo xamanteni ni dañ ko commencé di remarquer dañ ko commencé di setlu série sénégalais yi nañuy utiliser leneen waay nañuy nañu nañuy nañu nañu gas seen xel yi nañuy utiliser sen mémoire nañu nañu utiliser yenen aspect yu bokkut ak aspect yu terre à terre yi comprendre nga pour man war nañ mën di créer des personnes résistantes comme ni mu amé ci dans la vraie vie ndax àdduna bi da ngay gis ño xamanteni dañuy dund des situations plus pires que yi meer ndey kumb doon dund et pourtant duñ ci dof duñ ci lafañ duñ ci làgge duñ ci def dara comprendre ko pour man nak wax deug fa yalla war nañ mën di changer stratégie mais bul ñu bul ñu jël l'excentrer, ñu ci benn benn aspect centrer ñu foo xamanteni tous les jours c'est comme ça dafa mel ni Sénégal instant bi ni nii tous les scénaristes yi nga xamante ni ñoom ñooy bind ñoo bokk benn xel bi ñoo bokk benn livre bi ñoo bokk benn stylo bi ñuy binde pour lan vraiment on a besoin de changer on a besoin de gis leneen ak leneen ak leneen ak leneen wax dëgg yàlla ngeen jégal ma tey vraiment sama xol neexul voilà gars yi fi ñu frappé daal vraiment man je ne suis pas d' accord ak euh, ak ñoom voilà dëkku démocratie lañ nekk bu fekkee ne yow d' accorduloo ak man voilà comme wax naa ko sànq ah, demal commentaire nga wax ni d'accord ak man bu fekkee d'accord nga ak man aussi tamit demal nga wax ni d'accord naa ak yow. Soumboulou Bathily weddiwul ni moo boom Cheikh Oumar mhm. te lu ñu bëggoon a xam ci moom. guddi ku ne xam na guddi ak li mu ëmb góor ñëw dugg à son voilà maintenant nag seen chronique du du jour mi ngi mi ngi tiré à sa fin mais ñun ñoo leen ko tàmmal ah, ñun wa Sénégal 4 TV à chaque fois que chronique bi di jeex rek dañ leen di bayel li nga xamante mom modi question du jour bi tay question du jour bi moy li ngeen seetaan noonu légui légui légui moy euh, le le vrai duel ah, entre les deux avocats voilà ngeen gis avocat wu ki nga xamante moy le défense Cheikhouna ak avocat wu nga xamante modi moo di Soumboulou ngeen argument yi nga xamante ni jot nañ ko génne ñom ñaar ku ci nekk mi ngi def lañuy ñuy tuddee cueillir de savoir voilà voilà di sa sa compétence d'utiliser utiliser sa sa sa sa pouvoir de parler pour me a défendre wala boog nga mën nga mën am ndam ci kanamu ki nga xamanteni mom ngay layool. voilà tey nag question bi len leen di laaj tay si tay moy ci li ngeen jotta gis kan ngeen gis ni moom moo gën a nekk performant kan moo gën a am performance kan moo gën a war a kan moo gën a nekk au top pour gagner li nga xamante ni moo di duel bi pour mën a gagner li nga xamante ni moo di procès bi ba xam avocat wu euh, ki ngay ki le défend naa lay doon wala avocat wu Soumboulou lay doon à vous de juger chers internautes Sénégal 4 euh, TV vraiment amoon nañu mbégte ak contentement doon ànd ak yéen ci chronique bi di leen ci jaajëfal bu baax a baax lépp loo xamante rek jub na ci nii kàddu ngeen xam ne ndimbalu borom bi la xamante ni itam dëng na ci ngeen xam ne ki sunu matadi la ak sunu gàtt xam-xam di leen jox dig daje ay bis yi di ñëw ci beneen chronique asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa